maqaama bi lool la abu seydin moo ànd ak doom ji ñu dem ci barab mu def fay waade doom ja dal de ne ku ja xam ne bëgg nga gëm nga li góor gi wax waaw wane ko file ba nit ñi dajale ko fatara dajale ko fatara mu ko askan ci niir mu ne haddasa waxtaan na alxaaris xaaris ibnu hammaam qaala mu ne attantu toppoon naa dawaaxe yettasaa bi sababi njeng yoxu la waaye sababi ci jéggi dayoog sama ndaw bi may nekk ndaw ñàkk xam-xam ak da mu fëkkoon ma topp yëfi bànneex rek attantu toppoon naa dawaaxe yettasaa bi sababi njeng fi xoola waaye sabab bi ci jéggi dayoo ak sama ndaw falam asal dañu ma ziiran lil xëy di ñaal jonga may gi may lonko jigéen ñi rek tey mu waxtaani fii ëllëg mu waxtaani bële wudu nan tey déglu akoon li la yi de ay wëy de déglu ay xumbuta rek de déglu ay xumbuta rek ci lii laa nekkoon ilaa anwaafa ba dikk an nasiru bee jaaw ba bee jaaw dikk wa walla te joxe gannaaw alhay su dund an nadiru bu nata ma xam ne àddina la ma ci neexle woon moom jeex na ak ndaw moom boo ko rombee ba dugg mag ah du san ngay te mag moom métti na ba métti joxe gannaaw alhay su dund an nadiru bu nata wa xarimtu ma dal de soppa ilaa rushdil intibah jëm ci njub gaa moom xeexu la mm-hmm. ma gis na dëpp jot na mm-hmm. wana dim tu ma réccu ala maa ci li nga xam ne faratu sàgganoon naa ji mm-hmm. fi jëm billah ci wàllu sama borom la ma sàggane woon ci suma diggante yàlla ma réccu ko su ma axattu topp ma xarab fii kasen laa naati ci dàqee mbir yu suufe yi bil hasanaati ci ay jëf yu baax ay yiw hmm. ma tàmbali na di góorgóorlu bu baax daal hmm. ci yi maye tiyaabo ndeg hmm. rek bëgg bokk bëgg am cër ci daal Alxuraan waa ne innal hasanaati yusimna sayyi'aat wa talafil hafawaati ak dabaatal sarxees yi qabla fawaati ci njëkk faat wa bil familtu ma dal de jeng hammu xaadaatil xaadaati walis xëylaanteeg jongama yi ilaa mulaqaati siqaati wala tuqaati ilaa mulaqaati siqaati jëm ci dajeeg borom xam-xam yi ñu dëgër lu ci ñoom subhaan la ma la xam rek jigéen ñi maral de ko bàyyi partout rek mm. deseen ñi baax a toogaaleet mm. may toogaaleeg ñoom mm. deseen ñi baax a jegeante may jegeanteeg ñoom wa masori itam am mu xaanaatil xaynaati mm. walis jonkoog jokkoog jongama yi lënkoog jongama yi mm. ila mu daanaati ali diyaanaati mm. jëm ci eh, jege ante ñooñ diine yi ma wattande ko am mu xaanaatil xaynaati walis xiilanteeg jongama yi mooy lonkoog ñoom ila mu daanaati ali diyaanaati jege ante ñooñ diine yi wa alaytum ma an laa saba bu dee may àndaaleet illaa man dara koo xam ne nasaa génn na mu ani xëy yi walis ma giñ man daal nit ak caaxaan dootu dama ak moom nit ku ñor daal koo xam ne lu baax a ko saf kooku de ko seet ba wa te dellu man soru oo lu ñu wuññi lu ñu firim ila tey jëm ci leer koo xam ne lépp lu ne woon ci caaxaan ci wayin alfaytu su ma fekkee man ku xam ne huwa moom mm. xaliyoon resani mm. ku ñu summi noskam la mm. koo xam ne foog na lu ko neex teg lu ko neex wax mel ni xamatul benn nosk bu koy téye xaliyoon resani ku ñu summi noskam la madidul wasani ku tallalu gëmmeentu la koo xam ne foog na yëfi bànneex rek ci lay nekk su ma gisee koo mel noonu al ay sama daari sama kër an daari yi walit sama waxuma la jaxasoo moom waaye den di du mu ko nangoo defa moom wa faratu ma daw xan xar yi ayibam wa xar yi ak gàcceyam dama koy sori xaru mooy ràmm waaye ayib la ci jublu rek mm. falamma alxat nii ba ma ba ma sànnee nag mm. alxorbatu tumaranke mm. bi tinniis ci dëkk bu ñuy wax tinniis waxalat nii te mu wàññe wàcce moom tumaranke masjida jàkkay tinniis xalaat ni sa juraa ji ba ma demee ba ma demee tinnis nag de ku tumaranke hmm. dem ca jàkka ja li haada ku tumaranke hmm. raaytu gis naa bi ca jàkka ja hmm. saa halqatin borom ab géew multahimatin budaa ji lënkaw budaa ji booloo budaa ji kaw mooy nit bari nañ sësaloo wa nasaratin ak wéy seetaan nasara xam nga mooy mbooloo mu dajee te seetaan dara jamono bi nag jumtukaay bi ñuy xoolee dara muy lunette te dañ koy jëfandikoo waaye loolu tasawur loxo bi rek la nit ñi ni ñuy amee ay tasawuraat muy ay évoluer di di yokk di sopp di yokk ci mbir day feeñ ci seen i waxin léeg-léeg loolu moo ci am rek waaye bàtte moom ci cosaan fi ñu ko jëfandikoo nii rek la mu ngi mel ni sayaara rek jamaa musafira loolu daan firi ci cosaan waaye léegi nag ñu ngi koy jëfandikoo ala alatin turkabu inda safar kii itam loolu la rek mbooloo buy seetaan dara parce que loolu la cosaano waaye léegi ñu ngi koy ko ala alatin tusaru biha dama rek la dégg nga wa nadaratin ak way seetaan musdahimat ñu da way raylu wa watam yëqool mu ngi wax bi jaasin ci xol makiinin bu daaji dal wala bi jaasin ci nokkat makinin guraaji dal mu nge wax wax ju dal wa lisaanin ak lammiñ mubiin guraaji biral de wax ju leer naññi mu ngi naan miskinun ibnu adam wa ayu miskinin miskinun miskin la ibnu adama mooy ndeysaan ci doomu adama wa ayu miskin ak bu mujj miskin jeng na mina duniya ci àddina ila xayri rakinin jëm ci lu jëm ci duumu aji sax lu duumu aji sax jeng na jëm ci àddina te àddina talut bay doon lu nin war a jeng jëm ci moom waxtaan sama jafandeku na min ha ci àddina bi xayri makinin ci lul aji lul def na àddina muy léppam te àddina jaru dara wa su bihaare def na ko min hubbi ha ci sopp àddina bi xayri fikkinin ci lul paaka xam nga rendi bu dul paaka hmm. yàggal borom ci coono lay doon hmm. mu ne dundam yàqu na hmm. te yàqoo ci coono yu yàgg-yàgg yakkalafu dana mu soppu bihaa ci haddina li xaba wëtti yi ngir dox gim dox ñoradi gim ñoradi xamul fu mu war a xaw xamul mu war a bëgg tax na mu def haddina muy bëgg-bëggam wa yakkalafu dana mu sonn alayha ci haddina li saqawatihi ngir texe hadim mm. ay bu mu ngi kurti kurti mm. ndeg bëgg bëgg ndeg ñàkkum ñàkk sans mm. mu ngi kurti kurti ci àddina ndeg ñàkkum ñàkk sans wayan tëddu dana xadu fiiha ci àddina li mu faqarati ci damum ay bu nekk lu muy fuugare woo bu nit ñi dajee rek loolu la foog ne moom lañu war di wut xam naa nangami doom ak xam naa nangami jabar ak xam naa nangami kër rek yooyu lay nekk di waxee rek wala yatasawwadu te du yóbbulu mm. min haa ci àddina mm. li axirati yi jëm ci àllaaxiram mm. waaye de góorgóorlu ci farata yi ba mën a mucc de góorgóorlu ci naafila yi ba àllaaxira hoo defu ci lenn de uqsimu maa ngi giñ bi man ci buur bi nga xam ne maraja jaxase na albahrayni ñaari géej yi mooy géej gu neex gi ak géej gu naqadi gi su fekkee da ngaa war gaal di mm. dox ci gii mm. booy dugg ca gële mm. doo ko yëg ndax ndox yi liñ ko def xànd gi nag noonu lañ xaajoo xee nag mu neex mi du fekk mu naqadi mi mukk de mu naqadi mi du fekk mu neex mi mukk de boo tànkee ci ndox mi sotti ko fa mu dëkku dana delluwaat fa mu dëkkoon mooy marajal baxreyni yaltaqiyaani baynahuma barsaxun laa yartayaani maa ngi gën ci mi def loolu wa nawwara te mu leeral alqamarayni mooy jant beeg weer wi dégg nga samsu mu annas la qamar mooy muzakkar booy def taxliil muzakkar la ñoo nasal ci mu annas loolu moo tax qamaraani la ñuy wax du ñu wax samsaani dégg nga wa rafa'a te mu yëkkati qadral hajarayni darajaam ñaari doj yi naa am mën naa am xaalis ak la man naa am hajarul aswad la mm. ak dajoo suñ baay ibrahim doon tabax doon taxaw mm. ba mooy taxaw ba mooy tabax kaaba gi mm. man naa am leneen la waaye giñ naa ci yàlla mi darajaal ñaari doj ne law xaqala bu xamoon ibnu adam dama adama bu xamoon li mu war a xam kon la maan adama du naan waale de nekk fi dina ta ay sàngara rek te ko dajeeg ay nit ngeen de naan rek su xamoon su xamoon li mu war a xam du ko tal de wala fakkara bu xalamoon fii maa ci li nga xam ne xaddama jiital na ko su xelaatoon démbam li wéyaale ci bàkkaar yëpp ndax luñ koy topp ëllëg dañ koo note wala fañ ko ko baalam nit xamu ci dara su xelaatoon loolu la bàkkaar kon mu jooy addama deret kon waxuma la rongañ waaye dana jooy deret walaw sakkara bu fàttale ko woon almukafaata fayante sama borom la tazaka kon mu dabaatal mm. maa li nga xam ne faata na mm. su xamoon borom bi tabaraka wa taala mm. ni mu mën a fayantee ci lu rafeti ak lu ñaaw yi jaam kon léppum lu ñaawoon doon na ko dabaatal su ko defee dabaatal nag nit ki fa fay nekk door koo def waaye ku fi newul du dabaatal dara loolu moo tax kenn ku ne sooy woote ñaan gudd fan dégg nga waaw bu àddina neexuti soo guddee fan dana bëri lu yàqoon ci gannaaw nga mën ko defar a baqiyatul umri indi ma laha samanun a mu ne man de gudd fan xamale mu ko dara de a baqiyatul umri indi ma laha samanun wa in gada xayra maxsub xayra maxsubin min azamani so yeboo sax dina du neex a wa in gada xayra maxsubin min azamani a baqiyatul umri indi ma laha samanun wa in gada xayra maxsubin min azamani kii moo koy bind dégg nga ah baqiyatul umri indi maa hmm. lahaa thamanun hmm. amun de wa in xataa xayra maxsuubin min azamani doonte duñ ko limaale ci sama jamono mooy du neex ah wa in xataa xayra maxsuubin min azamani yastadriku almaru fiha kulla faitatin yastadriku almaru fiha kulla faitatin yastadriku almaru fiha kulla faitatin lépp lu faat ci koy mën a yastadriku almaru fiha kulla faitatin min azamani wa yamhu sua bil hasani ah bari na loo rëccoon jagale yastadriku almaru fiha kulla faitatin min azamani wa yamhu sua bil hasani moo tax dégg la yatamanna yanna ahadukumul mawta li durrin nazal yeneen bi mu ne am la jot rek bu mu sàgg suur na àddina faa war a dee léegi mu ne loolu duñ ko mm. la yatamanna yanna ahadukumul mawta mm. li durrin nazal mm. wal yaqul allahumma ahyini ma kanatil hayatu xayran li wa tawaffani in kanatil wafatu xayran bi waaye nit la war di ñaanee fekk dund na ngee am njëriñ yàlla yàlla yàlla nag ma fi baax yàlla nag ma fi baax su wàcc gënee nag nga door may wàcc seetlu bu baax a baax baqiyatul umri indi ma laha samanun wa in gada gayra maxsuubin min azamani yastadriku almaru fiha kulla faitatin min azamani wa yamhusu abilhasali walaw nadara bu settan daloon moom nit filma aali ca delluwaay ba la hasana kon mu rafetal xubal amali ñaaw ak jëf yi mm-hmm. nit bu settantaloon àllaaxira mm-hmm. xam ne fay rek moo fa nekk ak hisaab mm-hmm. waaye liggéey moom dootu fa am ku fa yóbbu lu bon dabaatal gi wéy na ku fa yóbbu lu baax lu tuuti yokk gi wéy na mais loolu lépp boo settantal loo am ci lu bon da nga seet nu mu ko rafetalee loo def ci lu baax da nga seet nu mu delloo fee de ndax foofu moom duñ ko duñ ko faa góor liggéey moom fii rek la yem waaye fële moom xisaab ak fay rek moo fa am waaye liggéey moom fii rek la yem maanaam walaw nadara bu xooloon fil maali ca delluwaay ba la xasana kon mu rafetal xubal amal ñaaw ak jëf yi yaa seet leen ajaban kéemaan kullal ajabi bépp kéemaan li man ñaar koo xam ne yaxtahimu dana mu bët saatal lahabi samar rey borom takka takka fikti naasi sahabi ci denc wurus seetal rek da dajale halal dajale koo xam ne dem safara nga day jëlee joxe wa asaka joxe wa saraaka allazina yaknizuuna sahab wal fiddata wala yunfiquunahaa fi sabilillah abashirhum bi azaabin aliim ba mu xàgg waqaf ni nasabi ak denc halal ba tey bi sabil nasabi ñaal borom askan yi dajale xalal keneen dikko dee dee doon na ko mm. nga faree coono bi sàbba mm. loolu perte la de mm. keneen loolu perte la de ara dégg ma topp minal bi ne bokk na ci lu yéeme alajib daa ji yéeme ay yaxee rakab waxtul masi bi rax ak bi jaaw wa aadana te xamle wa toodina te xamle samsu ka sa jant bil maxi ci so wala sa tëdër yow taraa ngay xelaat antuni ba ba nga tuubat wa tuwaat di ba nga sellal almaye ba ayib li gën a yéeme mooy dem ba weex tàll te ba léegi sa xel dañu génn ci ngune loolu ci gën a yéeme waaw su ma minal bi dene bokk na ci lu yéeme alhajibu daa ji héeme ay yahay zakka bu waadat la waxtul masi bi rax ak bay jaaw mm. wa dina te xam ne somtu ka sa jant bil maxiibi ci sox mm. wala sa tëddee yow taraa ngay xelaat al tuni ba ba tuubat mm. wa tuhaat di ba ak nga sellaat almaya bu ayib su man dafa topp mu jayu yum sidu di sadd insaada man sadda koo xam ne yum sid dana mu gindi moom waade kabina mu tàmbali di way wéy pour gindina mm. yaa way aman anzarahu saybuhu mm. wa huwa ala xayyi siba munkamis yaa kaay leen mm. way aman yërmande ko xam ne anzarahu waat na ko saybuhu bi jaaw ay goren ki ko bi ba waat oo tema munkamisun aji nuur la ala xayyi siba ci réer ak ndaw te dal ki dem ba weex te xame ñora di gune ci jikkoom ci yitteem ci waxam ci jëfam day na waar lool yan soo dana mu juumu ila naaril hawa jëm ci safara bànneexu bakkan ba dama asbaha ci gannaaw fu mu xëyee yartahin su di lox min doon fi xuwaa ngir doxaa di kattan koo xam ne boo taxawee yaa ngi rag-rag delungu baax a te génneewoo àddina ci sa xel àddina dëddu la mën la góode wayam ta dii dana mu war allah wa po wayan tadduhoo muy ko lim aw saama muy gën jaay saxi laara yaftaris dana ko lal al muftarisu aji lal po rek moo ne ci xel mi foog na ne mooy dayoo foog na ne moom rek ci lañu war a jëm lam yahal wegul asayba bijjaaw alladi bijjaaw mi nga xam ne maara a gisul nu joomawo ay biddiwam sullu bi borom xel illaa duhi sandare boo gëlëm loos na ko bi jaab bi nga xam ne ku ko gis mm. dem ci mm. moom day gis na ko mm. waaye taxul mu def ko de walantaha jajjuhut de amma wëlis li nga xam ne naxaahu tere na ko annuha xelaanu ci moom li nga xam ne xel mu rafet munu jaaxaan rek ba tey jii de moom ci la ne jajju jajjuhut de wala baala faale wutin nag bi nga din der xudi sa ko ayi balees na ko te yéen a amul jom yi nag nit ñi dafa xeeb naan mag mi rek parce que kooku le day in maata bu dee wasu xan wanaa sori la wa ñaar muy dundee bu ko mel ba dee a jar la ñaanal waaye yéen bu dundee it xon da limees ko kaan daanaka mu la may dund noonu de ku dundee asa ah, dund bi gënu dee laa xayra déet yiw fii max yam riin da nekk ci dund ak waay ju xam ne nasru woo xeñam ka nasri maytin mu ngi mel ne xeñam médd nu bisa boobu boobu waxees na ko baax na asrin ci gannaaw fukki guddi koo xam ne jikkoom ji salaat jege ko tax na jege méttam fukki fan gën a yow ok du dara laa xeera déet yiw max yam riin da nekk ci dund ak ne nasru woo xeñam kanas ri mayt mu ngi mel ni xañak métt mm. nu bi sa boobu waxees na ko mm. banasrin ci gannaaw fukki guddi benn way moo des mm. wahab sa baax na man koo xam ne xar duhoo deram tayibun aji tey la mu yorooku dana mu héemi husnan ci taar mis la burdin de ke mbubbu ruqi sa moom boyaa des na ko rafetale maa ngi ñëw léegi bay tarakta yaa miskiinu aw tantaqis wa qul waxal li man ñaar ki nga xam ne xasaaka woo dégal na ko sambuhoo bàkkaatam kooku nga xam ne bàkkaat doona déggu ko ja ne ko xalak sa xalaku nga yaa miskiinu yow miskiin bi aw tantaqis ndare nga sekki ko ne ko boo ko sekki wut mu de a bu defee bàkkaat da war a tuub de waaye ñàkkaat tuub bàkkaat mën naa waral xalaku de waaw mu ne nit bu ko dégg ak bàkkaat jëme da ko wut mu rey la de faqul waxal li man ñaal koo xam ne xat saakoo dégal na ko sëmbuhoo bàkkaaram ne ko xalak ta xalak ku nga yaa miskin ay yow miskin bi aw tan taxis ndare nga sekki ko boobu fa axlis nga sellal a taw bata tuub soo ko defee tat mis da nga pare bi haa maa li nga xam ne xat mm. nuqi sa boya des na ko mooy bindees na ko mm. minal xataaya ci ay bàkkaat mm. ak sóot yi daway ñuul nit gannaaw man da mucc ci bàkkaat dafa war a fonk tuub subaa ñi ko faral bàkkaat yi inna allaha yabsutu yadahu bi layli li yetooba musiu nahaar wa yabsutu yadahu bi nahaari li yetooba musiu layli mu ne fu ñu waxee jant sona sama borom tàllal na loxo mm. mboolem ku bakkaaroon ci ba ci mm. la boori ci boori ci tuub ma jéggal la mm. suñu waxee ba set na ñu defoon bakkaar itam ci guddi gi noonu leen yàlla di tàllalee loxo te yéen ci tuub ah inna allaha yabsutu yadahu bi layli li yetooba musiu nahaar wa yabsutu yadahu bi nahaari li yetooba musiu layli gis nga bu baax a baax attaibu mina zambi kaman la zamba lahu mu ne ki da bàkkaat tuub ko dafa mel ni amatul bàkkaat bàkkaat bi cuppu cuppu lëndam lay def ci xolam su ko defee bu tuubee leer ak tuub gi bu ñëwee far lëndam gi rek xol bi day dellu ha leer nam leeree woon mm. bañ bàkkaatagut mooy fa ma xaw naa ayatal layli wajaal na ayatan nahaari mubsira mm. loolu moo tax nit bu ko yàlla nattoo bakkaar mm. waaye nag warsagal na ko tuub rek mm. mën a rafet njort ci boromam dégg nga noonu daal la demee te ku ne hidde hoyo fal nag abaadir ila tawbatil xalsaai mujtahida wal mawtu way hakka lam ilayka yada mu ne gannaaw yaa fi xaale gaaw tuub la ci xam de abaadir ila tawbatil xalsaai mujtahida wal mawtu way hakka lam yamdud ilayka yada waaw hmm. mu ne gannaaw yaa ngi fi xaale hmm. ma daal gaaw tuub la ci xam hmm. la wax ndax ne kaale fi rek la waaw ah. ah, baadir ila tawbatil xalsayi mujtahida wal mawtu way hakka lam yamdud ilayka yada warqub min allahi waadan laysa yuxlifuhu la budda lillahi min injaasi ma waada te it nga xam ne ëllëg a ngi ñëw te li ñu wax ëllëg mooy am bu ëllëg jotee nit ku nekk dafa war a bàyyi xel mm. waaw ne ëllëg a ngi mm. li ñu wax ëllëg rek mooy am mm. bu ëllëg jotee waaw lañ ca wax rek moo cay am waafir na nga àndaale annaasa nit ñi bi xuluqin ci jikko ridan jële ju ñu gërëm te itam nga dee ànd nit ñi jikko ju rafet di jëflante ñoom jëflante yin woo xam ne ku ko jëflante yow dana rafet ak yow danañ la yebir bu baax mm. wadaare te na ngay mu mm. man koo xam ne taasu teey na mm. mooy borom xel mu gàtt ku diis ku jëfe mer ba mën a koo xam ne lam yetis teeyul mooy nit ku lewet te nit koo àndak del def moom mu al mu mooy da ngay ànd ak nit ànd gi xam na lu la ci war am na cër boo ci xam moom am na lu ko war ci yow yow itam xam na lu la war ci moom léegi nag la nga xam ne moo la ca war yow te mooy lam moom ci yow fasoo yéene manqué ca dara la nga xam ne moo jaay sa cër mooy la ko war ci yow boo xel da ko jël ba mu jeex mu am loo ca manqué li ndég nga de ci rafetal ca ndég nga de koy rafetal gi loolu moo mu daara bokku rek ànd ak nit nga la war ci moom nga de ko sàgganee te la moom na moom danga naxante ba jot ca loolu buy naxante yi mas la mudahana la loolu de nax nit rek de tëdd ci kawam la loolu baaxut loolu moom baaxut moom loolu moom baaxut moom moom du jikko nit ku yiw ndax loolu ko gis mu jikko ko ànd ak moom day faree de sonn ci moom rek loolu nag si góor waru ko loolu ku ko jikkoo bu ànd yow day sonn ci yow rek loolu nag si góor waru ko nangu dëgg-dëgg ah mu daana baaxut waaye mu daara mooy jikko bi baax yow daal li la war ci xaar ndox xanaa loo ci mënu de waaye loo ci mënu xelaatu la daw ci dara li nga moom ci xaar ndox te loolu daal loo ci mën a baax lu judul lor rek da nga ko de mën a baax dégg nga rafetal ci xaar ndox loolu mooy mu daara dégg nga maa dum ta hayyan fa daari naas kullahu moom fekk yaa ngi dund te ko ànde kune kunite ak kunite wu amma dumta hayyan fa daari naasa kullahum fa innama anta fi daari mudaarati yow boo yëgee ak boo yëgul àddina loolu la laaj amma dumta hayyan fa daari naasa kullahum fa innama anta fi daari mudaarati man yadri daara mu ne ku xam doxin waa àddina lum laaj dana nangu mu daara wa man lam yadri sawfa yura amma qalilin nadiman lin nadamati mu ne ku xamul nag xanaa xamadee koy rey mu door a xam rek wa man lam yadri sawfa yura amma qalilin nadiman lin nadamati ila wax na dëgg de wa daari na ngay mu daarante man koo xam ne taasa téy na wa man a ku xam ne lam yetti téyul waris na ngay dungal janaaxal hurri mbaggam gor hmm. in habsahoo bu ko suqee hmm. zamaanohoo jamonoom hmm. soo amee nit ku xam ne tolof tolof da koo gaar la yow la nga man ci jàppale ko def ko benn jox ko xaalal lay do wala dimbale ko ci sa ñaqa lay do wala dimbale ko ci say pexe lay do waaye nit daal bu amee lu ko gaar loo xam ne kum gaar rafet nañu dimbale la yow bokkat ñee def lu rafet laakaane yàlla bu xam man ko xam ne lam yëlis dum xalu mu ne ku nanguwul dimbale ku jaar dimbale mm. kooku daanaka kenn defewu ko dara mm. kenn defewu ko dara mm. waris na ngay dungal janaaxal hurri mbaggam gor in hassahoo bu ko suqee samaanoo jamono laa kaana yàlla bu xam man koo xam lam yëlis nanguwul dungal dungal waan jit na dimbale almawtu moo ku ñu tooñ mm-hmm. mooy ku ñu teg tiir zulman mm-hmm. ci tooñaange ku ñu rey mbokkam ci tooñaange mm-hmm. mooy koo xam ne dañ ko bàyyi xel da ko wéyale ci noteel yu jaxul yow loo man ca faj loola le def ko fay naa jasta boo lottee han indiadi yi wëlis dimbaleem parce que gis na nga lelu na nga sàkku xare boo ko dimbalee xam ne lor yoo daal kenn waru seetaan kenn waru caa seetaan mbokk kenn waru caa seetaan dëkkandoo kenn watu jaa seetaan xamaale mm. waaw bu amee daal mm. loo mën ci teggi ko mm. soo yeboo nga def ko ndax bu yokkoo mën naa agsi ci waan ji na dimbale almawtuur ak ku ñu tooñ mooy ku rey mbokkam mooy ku reyal sul man ci tooñ fa in ajasta boo lottee han in jaadihi walis dimbaleem fatta gis na nga ko sàkkul lel dajaleel ko xare wanaas te na nga yëkkati hmm. saa kab wëtin te naa soxla hmm. isa naa daa ka la xooyee hmm. soo kab wëtin borom ak jël soo amee ko daal bëgg ku ko dimbale ba mu jóg a fexeel dimbale ko ba mu jóg rek asaaka xëy na yow tantaxe da nga yëkkate ko bii ci moom place bi ca panguwaay ba mën naa waral yawmal xiyaama suma borom defal la yër yër la jaaxaloon man nafasa an axihi kurbatan min kurabi dunya nafasa allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama saaka xëy na yow tantaay da nga yëkkate ko bii ñoom filasri cappanguwaay waxaa ka jàppal ka sa nusi ka sab lahi biir bi lahi biir ngi ni le fasrab na naan man ngay naan wajut te nag nga tabee nag bi fadlatil kaas bi ci ndesiti kaas bi alaman ci ko xam ne hati sa mar na kaas la de naanal boo mandee lu ci def boo gisee ku mar nga naandal mooy la jëfeel de soo gisee ku jar xee nag nga nga xee ko ci loolu mooy wax bi rek te lu ko baax a baax waaye xam-xam loo ko xam-xam loo ko waxee waxee soo ko jëfeewut li mu war liggéey ci law kilta alfayrit li xamrin lam takun li tasira naswanan ida lam tasra bi lii sàngara la am ndox la nga dëkkee natt de sotti rek natt de sottil nit ñi de mën naa sottil nga ñaari junni nin ba lu ko ëpp waaye mosu ja lu tax mu liggéey ci sa jëmm lam ca waroon a liggéey xam-xam yi soo nga waxal ku ñoo bëri waaye jëfee wuloo jógewul ko taxul nga ko jukki waaw ah, law kilta boo natoon alfay rit li xamrin ñaari junni rit lu ci lam takun du la tax a nekk doo nekk li tasira de waa ji mujj naswaana de commandi du la tax de ida lam tasrab boo naanu ah, law kilta alfay rit li xamrin lam takun li tasira naswaanan ida lam tasrabi an la demee kon mbir mi moom bala ngay nattal kenn. Mm. da ngaa naaj mm. rek. ah wala naanal boo desalee rek. Mm. ah nga nattal keneen rek. ah dellu waaw waaw. fasaral naanal. wa jutte nga tabe. bi fadlatil kaasi ci ndesi di kaas bi. ala man ci ki nga xam ne ati sa mar na. qaala Haaris nee na faramma faraxa ba mu soxtalee moom góor gi. min mubkiyaatihi ci waade bi da way jooyloo. waqada te mu matal insaada abiyaatihi sadd ay wéyam mm. góor gi nag bi mu yi xam ne wéy nay wéyam ba mu mm. buur na sabi yoon ak mm. ak gune ak ak gune moo buur goo ne xasada na màgg na xam naa mu ngi dëhër si bu aara te mu rafetal al ba dana yaram moom nag yaramu neen la def ak gune goo def yaramu waqaal mu ne yaa dawil xasaa yéen borom xel yi mm-hmm. wal insaat ak cellantu ilal wasaati jëm ci déggaane bi mm-hmm. ñi nga xam ne am ngeen xel bu ngeen déggee dëgg dana leer mm-hmm. te déglu ngeen li dén déngaane yi xad waxaytum mokkal ngeen alin sada sadd wëy wëyi dee sadd nañ ko ba mokkal ngeen wa faqatum xam ngeen alin sada gindi gis ngeen yoonu gindi wiñ leen tegi tam mm. faman na waa ku yéena na min kum ci yéen mm. ay yaqbala ba mu nanguwaat liñ santaane mm. wa yusliha te mu xéwénal almustaqbala hëllëg liy jublu si fal yu bin na mu biralee bi birrihi ci jekkal ma aniyatihi ci yéeneem wala yaasil te bu mu jeng ani walisma bi atiyatihi ci mayam dégg ngeen li sëñ bi wax de mm. ku ci xam ne xelam sàkku tuyaa boo ngi ci mm. ko dalee ci man mm. léegi daal bu am lu muy joxe ci yàlla dama ko teggee wala yu bir na mu bira léegi bir rii ci jekkal ma an niyati yi ci xéeneem wala yaadil te bu mu jenga an ni walis ma bi an niyati yi ci mayam wala léegi naa ci buur bi nga xam ne yàlla mu dana mu xam alafraara mbóodi wa yaxfiru te muy jéggale alifraara nuur ci bàkkaar ginnaa ci yàlla mi xam lu ne ne sirri sama mbóot la kama taraw na ni ngeen ko gisee rek la man samay mbir kumpe wut wa inna wajhi te sama xar kanam la yastawjibu dana mu heyoo asaw na ñoŋeel te nag gor piir la su ma demee ba laaj bay na da xam ne gor la faaye noonu na ngeen ma dimbale dimbale leen ma waaji surtout yal na war sa galeef leen alhamdulilah dimbal ku ma dimbale yal na ko yàlla dimbale mu ne gi loolu la wax qaala Haris nee na afaaxata dal di xaral asayxu góor gi fi maa ci li nga xam ne yaasifu dana wëññi alayhi ci gune gi alqulooba xol yi mm. wa yusanni te dana yombalal la woo ñaal gune gi mm. almat looba la ñoo sàkku góor gi dellu jëlaat kaddu mm. di dimbale gune gi yonent bi nee na nangam ko defal di sàngam nangam yàlla nee na nangam di xiir nañu ci dimbale ko daal allahu fi awni al abdi ma kaana al abdu fi awni axihi yu mel noonu la nekk di wax man nafasa kurbatan an axihi kurbatan yooyu la nekk di wax hatta am bata ba balla xafruhoo hmm. ngasam hmm. bëggu ne gi pexe mi mu amee ci dara hmm. wansaw saba te bëri ñax xafruhoo suufam soo wéet xafru mooy àll boo xam ne amul garab amul ker amul dara ba mujj daal xam naa ñàkk la fi di tikkee woon ah, waaye jëlee na fi lum jàpp daal loolu mooy wax bi rek hatta am bata ba balla xafruhoo ngasam wan saw saba te bari ña xabru hoo suufam soobee hmm. falamma antara ba ba feesee nag hmm. alkiisu porte monnaie bi hmm. insalata génn na moom gune gi yemiu su de jaayu loolu la ci tegu ba nga ba nga xamee ne way ahmadu te muy sant attin niita bañ ko joxee ba mu pare nag dawa jaageen jëf waay waay fii moo jara dikk xaw walam yahlu neexatul nag li seexi ñaal góor gi al muqaamu sax ba nga daman saa ci gannaaw bu wëññeekoo al xulaamu gune gi insaa la ko teg daayin la de du daayin de bi xëyit ba nga daman saa xam naa mooy dem na mooy zahaba musri'an wan saba tëgg ba nga man saa ci gannaaw bu wëññee alxulaamu ba gune gi demee nag mel ni góor gi daal dem la bëgg fa am mu yëkkati lu al aydi loxo yi bi duhaa ñaan mu ne bon baax dikk leen ñu ñaan su ma naxaa mu jublu nax inkifa ci wàllu wëññeeku mu ne kon maa ngi wëññeeku qaala raawi arif nee na fartaatu ma soppu ila an ajumaho jëm ci bu ma xamat ko wa ahulla ak ma fecci mutarjamaho mutarjamaho lu ñu lapputum ma ne kii danaa ko natt fartaatu ma soppu ila an ajumaho jëm ci bu ma nattut ko wa ahulla ak ma fecci mutarjamaho lu ñu lapputum fa tabintuho ma topp ko wa watam yestaddu mu ngi dox dox boo way fi samtihi ci yoonam wala yaftuqu du mm. mm. mu ubbi rab xasamtihi hubag noppim mu ngi ne taras waxut ak kenn mm. falamma amina ba mu hóoloo al mufajia aji bet aji aji bette waam kana te jàppandi attana ji déyale ba mu demee ba sóori nag xàgg na ci li ñuy wax daal jaww ji huri na xam ne fi ne moom lu ñuy ne ba xamatul ko njeragal lafata geesal naa jiida hoo loosam ilaye jëm ci man dama geesu wasallama mu nayu taslimal basasati nayo tal xar kanam alaye ci man mu nayu ma nayo piree ko lool su ma xaala mu ne ma araaka araa araaka ka xaraa hiimuloona la zaka zaka suwaydini ñawak ak ak ak aji màgg soosale mm. xanaa xale suur de di tàmbalee dëhër bi mm. yéemu nga ci nim ñëwee mm. xaali ne fa qultu ma ko ii waaw wal muumin giñ naa ko ci yàlla mi di aji wóoluloo al muhaymin ku di aji tew giñ naa ko di xaala mu ne ma innahu moom fata soroji doomi abu seydini soroji la doomu soroji ji wa mu riji durri kiraaji génne wurus mina lujji ci géej gu bari ndox hmm. xam nga nisbatan ila lujji lujji mooy lu digg digg ndox hmm. ki nga xam ne mooy xuus lu sori ci waxi arab hmm. génne lu héeme héeme defen bu baax xaalis ne fa qultu ma ne ko asadu maa ngi giñ ne innaka yow la sajaratu samarati yaay garabu meññetam moo ko yaa de bàyyam de wasuwaatu sararati yaay tàkk tàkkatu njarmeetam yaay bàyyam de fa sadaqa mu dëggal kahanati sama gisaane xam naa faa doon tolla de hmm. waa dëgg la de hmm. wa sasana mu rafetlu ibanati sama biral hmm. maanaam yow kat neex nga yow su ma xaala topp mu ne ma hallaka ndax ñu ànd na la su dari bay di jëkkalante néew mën nañu wàgg ci kër li na tanaasaa ngir nañu joxante kaasal ku may di kaasal sàngara ah mën nañu àgg ci kër gi suñu demee mos ci ndox mi tuuti hmm. xaalis ne ko xultu ma wax la woo ma ne ko hmm. way xàkka xoona séer ma tey yow hmm. ataamuroona digel ngeen a ni annaasa nit ñi bil birri ci lu baax watan saw na ngeen bàyyi ngeen fàtte ngeen bàyyi am fusakum seen bopp di digal nit ñi lu baax te la ngaa digal nit ñi nexoo rek lu tax doo ko baax ki faftarra mu dal di muuñ mm. iftiraara mutadahikin mm. muuñ ak aji reereelu mm. li mu ko wax reelu ndax dëgg-dëgg la mu dal di muuñ noonu rek wa marra mu romb xayra mu mahikin duma ji xuloo bi mu ko waxee dafa xaw mel ni ku muuñ rek tere suma wéy tontu dëgg-dëgg suma bada topp feeñ la woo ñaal ko mm. antara jama ba mu delsiaat mm. ilaye jëm ci man mu dëppalaat ma mm. wa qaala mu ne ihfadha mokkalal li may wax si nii an nii jëlee ci man waalaye ak ci man déggal li ma lay wax isrif bi sirfi raahi an kal asa wa rawihi alqalba wala taktaib wa qul li man laamaka fii ma bihi katoo ankal hamma pat ka tëy isrif nanga soppat hmm. nangay soppatee hmm. al asa njàqare hmm. ci yow bi sirfi raas ci sàngara su sell su la jaaxle ñëwalee nga bëgga def ci jaaxle ya fexeel ba xam sàngara rek naan ko danga fàtte lépp lu la jaaxalo isrif nangay soppatee bi sirfi raas ci sàngara su sell alaasa njàqare an ke ci yow mm. war a wéete na noppal alxalba sa xol wala mm. teg tayib jarul nga nekk de jàq rek liman ñaal ki nga xam ne laama kay yàdd na mu mm. maa ci lu xam ne bi yi ci moom tattoo ngay jañee alhamma njàqare han ka ci yow loo xam ne dang sa jaaxle bu la ko nit bëgg a haye rek la la danga xat ka doylul dégg nga mm. it tey bañeekul mm. lu mel noonu daal bu la ko nit bëgg aaye ne ko waa léegi dañoo wax ne baax na na rek te nga bëgg a def doo mel ni jaxal la la yéene rek mm. xat ka it tey bañeekul su ma xaala toog mu ne ma ama ana man nag parce que am ko damay bayu illaa haytu astabihu jëm ca fa may naanee naan ak suba mm-hmm. saboo mooy sàngara suba mm-hmm. waax tabi xoi fa may naanee naan ak ngoon aboo mm-hmm. mooy naan ak man nag li ma nekk bu la safee ak bu nekk waaw li ma am daal bàyyi fee su ma ko lekkee ci lii amma daal man daan tali ku danaa boy ilaa haytu astabiu jëm ci fa may naane naan ak suuf wa astabiu xaa fa may naane naan ak ngoon wayin kunta boo nekkee nag laa tasaabu din ngay àndaale wala tulaayimu te din ngay dëppoot man koo xam ne yasrabu dana mandi wala sa déedéet yow bi dafay xen nga daan loo di ñaan su fekkee ne yow kuy naan sabut la ah kon duñ mën wala tariqu ka des sa yoon bi tariqin di yoon li ñaanu bokkuñ li ñuy dox mm. saa yoo nga dox mm. te bàyyi man ci yoon mm. wa xalli fi xalal sa bilee sama yoon man nag ki te ñu jeng wala tu na fir wala wala tu na xir wala tu na xir bul gës andi ci man wala tu na xir bul gës léegi li jëndi man fu ma nekkat ci mm. mm. mm. ah, lu ma nekk ak kuñ may dégg yooyu daal warul waaw kon li ma nekk neexul la daal man li ma nekk yaa nekk waaw so nga toppatoo di la saf rek di la saful nga bàyyi ko ñëw sax li njël bi ma nekkat kuñ ma dégg ci lu ma nekkat yooyu daal moom warul comme daal li ma nekk safoo la daal yow da ngaa nekk ci li la saf di la saful nga bàyyi ko ñëw fa xalli fi xala sa fi di sama yoon wana kibta na nga jeng wala tu naqir ba gëstu an ni ci man wala tu naqir ci bul gëstu lii la wax suma walla topp mu dëdd mu garan day joxe gannaaw boo la ma jox gannaaw wala mu aqib da siaatu de lépp de qaal al haaris ibn hammam haaris ne na fal tahabtu ma daal di takk wajdan ci tata njàqare mooy tata cofeel alhamdulilah fi boboy ba mu demee ndeysaan suma xel mi aju ci moom rek walitu ma ngeeji law lam ko laati sama ñàkkoon a dajeeg moom mais daje bii de boo koy seet bi ma bàyyee de coono bi ma bàyyee de daanaka ñàkkoon a am foofu